de je pense que euh, c'est un appel à la citoyenneté donc je pense que le président Macky Sall pour lancer un appel pour un Sénégal propre pour un Sénégal hygiénique donc je pense que euh, toute la population sénégalaise ñoo aussi war impliqué en tant que mouvement citoyen avons tout ce développement donc lépp gis ngir euh, euh, participer ci développement askan wi dañ koy def donc motax li euh, lii ci suñu programme la bokk donc assainissement ak hygiène ak hygiène publique je pense que ni dafa bokk ci dynamique bi nga xamanteni le mouvement Siggi Jotna ci loolu lay dox motax tay li dañ ko rafetlu rafetlu ko parce que du yëfu président Macky Sall mais yëfu Sénégal yëfu population bi parce que d'abord bu ñuy wax set moy indi wér te wér moy indi jamm te jamm fu mu amee rek réew yi mëna am liggéey donc tay dañuy gëna ñaax rek la population ñu wara a xam ni kat set ci sa biir kër d'abord set ci sa buntu kër set ci mbedd mi ndax té euh, tey à l'instar des pays des pays développés tay lan mo tax ñu yegg si développement hygiène mo tax ak propreté donc tay ñun dañuy voyager dem ci yeneen dëkk yi mais di nga euh, dox te doo gis suuf

donc dans moment moment tax ñu ngi population donc euh, tay du yëfu parti du président Macky donc euh, les ASC les associations de quartier les réseaux communautaires nous avons nga xamante rek développement moom lay donc je pense que le développement si si si commencé donc ñu ngi ñaax ñëpp ñu euh, bale sen gox sen koñ d'abord nous devons doog pour un Sénégal propre donc dans ñun mouvement Siggi jot na ku ñu xam ci dynamique de développement lañ lañ nekk pour taxaw askan wi euh, amul kii le la bokk le la donc tay bo gisee tay ñima ñi fi mobiliser ñep donc tay dañu ñëw répondre à un acte citoyen donc tay c'est un engagement de civisme motax tax nit ñu jox pour participer si li nga xam loo xamante ni mooy hygiène publique. Abdoulaye Dièye ñu ngi lay nuyu di la sant ci kàddu yi nga xam ne yëkkati nga ko comme ni nga ko waxee rek le président de la république su joxee ndigal bii moom ci boppam mu tàmbali ko ci fa koñam bi mu dëkk kon nag ñun ñi waru ñoo des ginnaaw di am mbégte nag ci lii nga xam ni wax dëgg yàlla ci sama quartier la xewe comme ni ko waxee rek fii amul parti politique amul tarixa amul daayira amul lenn ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñun en tant que sénégalais en tant que sénégalais en tant que citoyen ci loolu la ñuy ndax lii kat suñ fekkee ne pérenniser nañ ko dinañ xam ni cet am na solo. dañoo kontaan tey dañoo ñëw fii tey ànd ak le président Ablaye Dieye mu ñëw génnee askanam mooy askan DVF bi mu bokk génnee ñëpp pour ñu setal sunu gox seetul parti politique seetul dara dafa seet képp ku dëkk Thiès ta nga war a setal comme ni ko président waxee rek mu topp ci. ñu ngi koy saluer di ko remercier parce que xaarul ñu jox ko matériel xaarul ñu jox ko oto xaarul ñu jox ko dara dafa ñëw ak ay propre moyen jënd bale jënd brouette lu yow oto def lépp pour ñuy setal dëkk bi kon président ñoo ngi koy tàllal loxo bu baax di tàllal loxo autorité nekk ci dëkk bi yëpp di xool li président Ablaye Dieye def mu am suivi ñu jàppale ko parce que bu ñu ko jàppalee dinañu jàppale parce que fii chaque jour dañ daan bale des fois femmes yi abe yi mais dañuy bale du ñu am moyen yu ñu tonnee mbalit yi def ko ci oto du ñu am fu ñu nee suuf si yóbbu ko moo tax chaque jour dëkk bi day tilim comme bu ñu commencé ni di ko liggéey dañoo ñaan yàlla eggale ko ci ay moyens de déplacement ay moyens matériels loolu la ñu soxloon comme ni ko président ab Ablaye jee joxe. parce que tey ku taxaw fi rek sa xol sedd na Egalon ay Nena Fall Bayal Pencu àll ngeen ñëpp daje nañ fi. waaw ñun jigéen ñi dañoo pare pour chaque jigéen groupe bu nekk am nga bis boo xam ne ci ngay def sa avec. léegi dañoo bëgg jour bu ñuy defati avec suñu xëyee ñu bale ba mu set bu ngoon nañu doog a natt suñu avec denc ko loolu daal la ñu fas yéene organiser